ñaari fas lañu fekk ñu yeew leen yeewin boo xam ni dañoo mujj dee fi nga xam ni mooy ci dëkk bi ñu naan Likunda diggam ak Tambacounda toll ci fukk ak benn kilomètre ki nga xam ni moom mooy njiitalal sàmmkat yi di Adja Dieynaba Sidibé directeur national des femmes en élevage dañoo ñëw ci turu organisation d'éleveurs yëpp maison des éleveurs député yi ak ñëpp ñëw massaw borom dëkk bi mais massaw borom fas yi ah ñun dañu yaakaaroon ne fas yi ci biir tool lañ leen reyee mais ñëw nañu ba tiim fas yi fi ñu leen reyee jegewul tool mu jaaxal ñu nag lool ndax dañu defe ne woon ne diggante béykat ak sàmmkat fas yi ñoo dugg ci toolu béykat bi mu def leen nii mais lii ñu gis nii tey tax nañu ñu gën a jaaxle judiciaire yi ñaan autorité yépp nañu taxaw ba lii dootul amati ci biir région Tambacounda dootul amati Sénégal xam ne fii jur gi fa la war a jaar naan loolu yëpp ay jafe-jafe la loolu nag moo waral maa ngi ñaan état bi président de la république na jublu ci code pastoral bi il faut que éleveurs yi am code pastoral boo xam ne mun nañ ci sukkandiku pour béykat xam taxawaayam sàmmkat xam taxawaayam ñi nga xam ne ñii mooy euh, ñii exploitant forêt xam taxawaayam nappkat kenn ku ne xam sa taxawaay. ci wàllum nguur gi nañ leen jàppale ci wàllum kaaraange ndaxte léeg-léeg ay càccum jur gi dafay am léeg-léeg itam ay jiixi jaaxa da daan am diggante béykat yi ak sàmmkat yi bii nag li jaaxal nit ñi mooy fas yi nga xam ne rey nañ leen ci route nationale bi fekk ñu leen ci biir tool ba tax nag ñi nga xam ne ñoo def njombe soosu ana fan la ñu wékku ba def lu ni mel loolu nag enquête bi du ñàkk dana ko mës a wane